ñaar Korint kon nag ndegam yàlla ci yërmandeem sas liggéey boobu dunu bayliku lànk nanoo ànd ci mbir yi ñuy nëbb te ñu gàccelu suñuy tànk du yu njublaŋ te duñu dëngal kàddug yàlla waaye nu ngi biral dëgg di sàkku kóolu teeg ñépp fa kanam yàlla su fekkee ne sax xabaar bu baax bi dafa muuru ci ñenn ñi dafa fekk ñoom ñu aw ci yoon wu jëm ci sànkute ñoom la yàllaay jamono ji gëlëmal seen xel ngir ñu bañ a gis leeru xabaar bu baax bi wone ndamu kirist mi di melokaanu yàlla ndaxte yéesu kirist borom bi lanuy waare waaye waarewunu lu jëm ci sunu bopp nun seeni jaam lanu ndax yeesu ndaxte yàlla mi ne na leer leer ci biir lëndëm moo leer ci sunu xol ngir leeral nu ak xam-xamu ndamu yàlla liy feeñ ci xar kanamu kirist leer googu ci sunu xol mi ngi mel ni alal waaye ñu ngi ko def ci nun ni néew doole ni njaq kese ngir kàttan gu ëpp xel gi bawoo ci yàlla te du ci nun dañu nuy sonal fu nekk waaye kenn tànc nu dañu nuy dugal ci ruq yi waaye dinañu ci génn dañu ñuy fitnaal waaye yàlla du ñu wàcc mukk tër nañu nu waaye kenn dogaliwunu fu nu toll noo ngi gàddu ci sunu yaram déegi yeesu deewoon ngir dund yéesu moom it feeñ ci sunu yaram bés bu nekk nun ñuy dund ñu ngi nuy jébbal dee ndax kirist ngir dund kirist moom itam feeñ ci sunu yaram wiy dee noonu dee mi ngi jëf ci nun dund di jëf ci yéen mbind mi nee na dama gëm moo tax ma wax nu nit nag ndegam am nanu menn xelu ngëm moomu danoo gëm ba tax nuy wax ndaxte xam nanu ne yàlla mi dekkal borom bi yéesu dinañu dekkal nun itam ak yéesu te dinañu yóbbu ak yéen taxawal nun ñépp ci jataayam ndaxte lépp lu ñuy daj seen njariñ a tax ngir yiwu yàlla wi yokk ci nit ñu gën a takku yokkaale ngërëm lu jëm ci yàlla ngir jollil ndamam loolu moo tax sunu yaakaar du tas bu fekkee sax sunu yaram day yàqu jëm ci mag sunu ruu moom bés ak bés muy gën a yeesaat ndaxte sunu coono boyof bi dul yàgg dafa nuy jural ndam lu bari ba suul coono bi tey sax abadan kon diiruñu li ñuy gis waaye li ñu dul gis ndaxte li ñuy gis day wéy waaye li ñu dul gis day sax ba faw